Euh, di Ousmane Sonko doon na janoog taskatu euh, xibaar yi doon def nag état des lieux si li nga xam ni euh, noonee la ñu fekkee réewum Sénégal maanaam nguur gi fi nekkoon di nguuru ko Macky Sall ni nga xam ni noonu la ñu bàyyee réew mi mu def nag ay révélation yu mag a mag yoo xam ni démb ku ko dégg rek loxo daal di dar gémmeñ ndax nag nee nañ lu toll si 2500 milliards daal nañ koy utiliser te trésor publique yëgu ko si jamono ji nga xamee ni ñoo ngi ko doon amal sur 605 euh, milliards pour euh, fay ay dépenses yo xamni bokul ci budget bu Sénégal euh, mais aussi am nañ bor bo xamni toll na ci quinze milliards ci njeexantalu 2023 bi alors que 13772 milliards lañ ñu annoncé woon mu melni Arfan jamono ji nenañ nak ñun ñi ku ci nekk war nga fay 900000 ci bor boobule le xamna après di nga ci yaatal waye aussi mom jitu mom élimaanu Diourine yi dal dinay xam le ni ki di Macky Sall muy Moustapha Ba di Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo war nañoo nag ñëw daal di wax ak askanu Sénégal ngir gindi leen euh, ci euh, li nga xam ni moom lañ yore woon euh, réew mi xam ngeen ni Ousmane Sonko d'habitude saa bu waxee politiciens yi ñu bëri dañ koy tontu waaye nag ki ci gën a fës di Bougane Gueye Dany daal dina koy tontu moom nag nee na Ousmane Sonko defut lu dul rek di waajal sénégalais yi ngir jamono yi nga xam ni ca la ñu jëm dund gi dina métti trop pour nag mu waajal leen maanaam dafa teg xel sénégalais yi waaye aussi mu wax ba wax ay wax waxu euh, nenu baxal boo xam ne 150 francs lay jar jamono ji xam naa Arfan dina ci euh, xuus ba xam euh, ndax 150 francs la ñuy jëndee nenu baxal fii ci Sénégal am déet conseil constitutionnel aussi di nay rek gàntal wala lankal ñi nga xam ne ñoo di waa atel seen càkkutéef ñoom lu ñu bëggoon mooy ñu daal di annuler décret bi nga xam ni moo convoqué le corps électoral ngir nag législative yi nga xam ni moo war a am 17 novembre bi nga xam ni ca la ñu jëm Lat Diop moo ngi woon ci loxol yoon gu gu ñëk euh, ni ki démb ca ndax nag daal dinañ koy garde à vue euh, diko topé détournement de deniers publics euh, blanchiment de capitaux extorsion de fonds kon momit ay mbiram dinañu ci yaatal ci kanam Macky Sall mi fi nekkoon na njiitu réew daal dinañ koy nak nommé président du centre mondial sur l'adaptation au changement climatique à l'assemblée générale des nations unies muy nombal tank bo xamni kon mi ngi noonu dolleeku ci ay raya mom nga xamni modi Macky Sall waye mbirum Jérôme Bandiaky euh, ci daal di euh, yaatal ak euh, ki nga xam ni moo di avocat nga xam ni tey war naa jaanook taskatu xibaar yi ngir nag wax ci ay mbiram kon Arfan ponk yaa ngi noonu xam naa ñu door rek ci yaatal bi ak point bi nga xam ni mooy point bu njëkk bi comme ni ma ko waxee ci début bi rek niki démb moom Ousmane Sonko di élimaanu jëwriñ yi mu ngi woon rek di janook taskatu xibaar yi Arfan foofee nag mu def ay révélation yoo xam ni wax naa ko sànq ku ko dégg rek loxo dar gémmiñ ndax muy loo xam ni euh, mën naa ni euh, askanu Sénégal dañoo yàggoon kon euh, di leen nax ci yorinu ko réew mi yu bari yoo xam ni waxoon nañu ko Arfan ñu gis ni d'après li Ousmane Sonko fësal loole amul ay surfacturation ay surfinancement dette bi itam di bor bi nga xam ni Sénégal am na ko ñu gis ni lañ ñu waxoon ak li am dëggantaan wala li ñu Ousmane Sonko wax bokkul ñu dem sax Arfan ba naan sénégalais bu nekk war ngaa fay neuf cent mille bu doon ñun ñoo war a fay bor boobu trop Torop euh, dembu ñu fanano révélation yoyu ma bayila la rek nga defal ñu sa lecture ci euh, conférence de presse bi nga xamni mom moom Diourine yi euh, mi ngi ko don amal niki ki alors Ami encore une fois dafa am solo mm. li nga jógee wax ni sank te ñu dégg ko mm. le premier ministre Ousmane Sonko wako devant tout le monde il a dit publiquement mm-hmm. lo xamantene amana amana euh, sénégalais yu bëri yag nañ ci am siki Ils mhm. ba léegi bo ba léegi ñuy top ci ginaaw pour xaar ku ñuy gindi donc euh, ci lolu parce que mhm. euh, débat bi agité et aussi manipulation dans le Sénégal na dem ba bind livre ce livre blanche voilà donc mhm. Macky Sall lii la fi liggéey lii la fi bàyyi lii la fi bàyyi même si Abdou Mbacké Bara Dolly génn na livre rouge <laughs> booba léegi ñu ngi koy xaar moom Abdou Mbacké Bara Dolly mais ami pour ñoo ne la carrément ci révélation yoo xamante ne sànq tudd nga ko mm-hmm. te Ousmane Sonko mu wax ko démb xam nga lu mu koy def mm-hmm. parce que ami euh, sénégalais war nañu xam sénégalais war nañu xam malheureusement la cible c'est les sénégalais mm-hmm. ku bëgg a manipuler sénégalais ngay manipuler ku bëgg a wax lu dul dëgg sénégalais ngay wax ngay waxal alors au mois de juin génn nañu fii ay chiffres ñu ne FMI moo ko génne. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. au mois de juin boobu. Mm-hmm. nguur bi fi nekkoon nguur Macky bi génn na ay chiffres jébbal ko euh, balaa ñuy wàcc jël nañu ay chiffres jébbal ko FMI. le Sénégal la dette du Sénégal. Mhm. n'est pas le Sénégal sa signature donc euh, euh, mhm. n'est pas menacée. Mhm. alors ñi di di du non comme Macky Sall gongo. ci jamono aussi ni ici le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye def point de presse ils ont trouver un pays en ruine. en ruine oui. a qui fàttaliku. Mhm, coow bi voilà coow boobu daal di Tu vois, Tu vois, FMI. le fait que FMI le mhm. Sénégal gongo mooy manam, signature bi oui Sénégal économiquement n'est pas menacé Mais pourquoi le président a parlé d'un pays en ruine. Mhm. alors que FMI c'est la wax. yaa ngi dégg. Ousmane Sonko gouvernement lu ñu ñëwee dëmb leeral ko ci sénégalais poñ par poñ pour sénégalais comprendre la mm-hmm. parce que bu fekkee ñu mel ni Bougane dañoo taxaw ñu ne président de la république waxul dëgg mm-hmm. ils n'ont pas trouvé un pays en ruine mm-hmm. ñoom ñoo ko wax opposants yi ñoom le président Bassirou Diomaye fay lu mu wax amul parce que ñoom dañoo sukkandiku ci li exactement ñoom dañoo sukkandiku ci lu FMI wax woyaayu comme sénégalais donc comprendre ñu. ni que FMI boo gisee mu wax loolu en juin. ñii ñoo manipuler chiffres yi jox ko chiffres yu mu bëgg a gis. Mais mu non. waaw parce que FMI aussi. li mu gis waaw li ñu ko jox moom loolu la wax. FMI loo ko jox. waaw mm-hmm. moom ci wax. Mm-hmm. Mm-hmm. que ça soit le ministre euh, euh, comment le premier ministre Ousmane Sonko que ça soit le ministre des finances. ñu génn dëmb leeral sénégalais les chiffres qui ont été manipulés pour sénégalais mhm. ils ont manipulé des chiffres faisant croire aux sénégalais ni que Diomaye ak ils ont trouvé ce pays là en ruine faisant croire aux sénégalais que banque FMI li la wax ñom ñu wax donc ñi ñoo waxul parce que FMI mom à da fay contribuer ci ñi jox xaliss état du Sénégal mhm alors que nous avons maquillé les chiffres Djoko FMI FMI FMI FMI Il ci loolu génne rapport alors ce que le ministre a dit hier ami dafa la dette dépasse 1600 milliards mhm. ce qu'il a dit il a dit la dette dépasse 1600 milliards et chaque Sénégalais <laughs> doit payer neuf cent mille francs mooy maanaam euh. boo la dette Sénégal mhm. fu mu toll mhm bu que nous sénégalais lambda bi nous ko fay parce que nous avons parce que mhm. dette bi il faut que nous xamni ñun sénégalais parce que ci impôt bi la fay la fay dañuy dem ñun ci TVA luñuy fayé l'impôt ñun luñuy luñuy TVA donc nous, nous, ñun sénégalais yi nous pour gafa réew nous, sénégalais nous lu pour l'état du Sénégal même si faisons ay tali même si fay bor même si euh, tabax ñun sénégalais lambda bi ñoo fay ñun ñoo fay ministre bi ne dette euh, sénégalais bu ce qu'on appelle 900 francs moy tat bu ne bo duggee kër jambour bo duggee kër bu ne. sénégalais képp ku fa yeewu. warna naa a fay 900 francs 900 neuf cent mille regardez comment ils ont manipulé les faits. benen bi ministre bi yamul ci lolu dafa ne déglu leen bu baax de. ministre bi dafa ne. y a plus de 1000 milliards. dépensés té kenn xamul fu mu dugg. sans justificatif. sans justificatif. Mhm. ça dit que sans traçabilité à bob plus de mille milliards mm-hmm. bo xamantene ne nañu ko mm-hmm. té ken mënul génné traçabilité xaalis bobu fo la dugg mm-hmm. regardez bamboula bobu loolu lañuy tuddé carnage financier loolu lañuy tuddé carnage financier par rapport ñu fi taxawoon dina non jomay waxul deug on a laissé euh, donc euh, comment dire euh, une économie à à six chiffres comment dire à six pour cent ils ont laissé une économie à 6%, donc ils ont laissé de l'argent, un budget à Djamay, donc Diomaye mënul wax loolu. Mhm. Tu vois Ousmane Sonko ba je profite de l'occasion pour t'entendre non comment on peut dépenser de l'argent te am a nit nit du traçabilité mhm. Il nga ku xamul ku Il économiste a nga ku économiste ku deful ku deful euh, euh, euh, fiscalité ku deful comptabilité hmm. ma cité ma cité ces ces ces comment ces matières là gis nga ku deful ñooyu doo xam naka li ñi manipuler des chiffres do xam naka li ñi génnee xaliss hmm. sans traçabilité c'est force possible parce que ñom ñoo nekk ci état lu ñu bëgg mu feeñ moy feeñ <laughs> Macky Sall ak ay nitam bu fekkee dañuy génne plus de 1000 milliards pour séddoo ko ñoom mais lu ñu bëgg mu leer moom mooy leer. lu ñu bëggut mu leer du leer. donc c'est pas un débat ñi taxaw di naan non Ousmane Sonko waxul dëgg xaalis bu toll noonu kenn kenn du ko génne sans sans sans traçabilité hankay ah, mën na nekk parce que ndey billi gi moo bëgg lu mu feeñ. Mm-hmm. te moom moo yor commande yi bu bëggulee bu bëggee génnee xaalis te du feeñ te du du feeñ lan la lan lañuy ciow coow di naan ñu nekk ñu nekk ñu nekk euh, ci kii boobu nu mu tudd euh, euh, ci direction des finances bi boo xamante ne dañoo dañoo créer dañoo créer ay faux ay faux ay faux comment dirais ay faux facture ba pare jéem a effacer les traçabilités ça à dire que ci mémoire machine bi la ñu dugg jaxase machine bi ba bu amee facture wala bu ñu génnee xaalis machine bi.

responsabilité moy mooy lan mooy le Ousmane Sonko wax dembo moy quand kan mo fi nekkoon ci jamono bobu ministre du budget mhm. kan mo nekkoon ci jamono bobu ministre des finances il a cité les ministres des finances <laughs> les Abdoulaye Daouda Diallo mm. les Moustapha Ba mm les Amadouba. Et les, Amadouba et qui, qui étaient derrière, derrière ces ministres-là. c'était un tu Moi, nalem. Mm-hmm. Moi, que nous, ils vont rendre compte. Oui, oui. Mm-hmm. Ils vont rendre mm-hmm. compte, ils vont venir dañuy expliquer sénégalais parce que nous mom Ousmane Sonko lañuy expliquer dédé nous bi Ousmane Sonko momuko le ministre des finances jamono bi ni momul xaliss bobu l'argent appartient aux contribuables sénégalais à tous les Sénégalais. Donc Ousmane Sonko Bouné, Macky Sall ses anciens ministres des finances war nañu ñëw askan Sénégal di leen expliquer lu cette manipulation des chiffres lu ni ñiy que ci les chiffres la mais defalu ko boppam Ousmane Sonko mais daf ko defal Sénégalais yépp la. Mm-hmm. parce que sénégalais tay ñom ñoo bëgg sen ana sen xaliss fan kan moko ko génne fan la duggu fan lañ ko jaaralé sénégalais ñoo bëgg mu lèr c'est pas Ousmane Sonko donc je crois que i sénégalais war nañu xam lan la wara débattre ak lan la warul débattre gis nga nit ak loko bañ-bañ ami bu nekké di wax lu soxal askan wi nga déglu ko attentivement nga déglu ko attentivement tu sais pourquoi parce que ami tu le point de presse qu'ils ont fait Ousmane Sonko le point de presse qu'il a fait avec euh, les éléments de l'État du Sénégal nous loolu laa ko mën a mm-hmm. ak ces ministres là mm-hmm. mais quand je fay dem attentivement ce qu'ils ont dit tu nga un sénégalais nga bëgg sa le fu mu cette gestion sobre et vertueuse bu bu Macky Sall doon jaay sénégalais nga bëgg lolu yëpp nga déglu lu ñu wax ba nga lu ñu wax di ko colorer ay politique nañu mm. les comment tu dis que mm. euh, Ousmane Sonko a déclenché sa campagne mm-hmm. électorale campagne parce da campagne mm-hmm, campagne donc man man man man xaw ma ni man musuma gis campagne bu ñuy defee nii <laughs>